jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa gis ngeen kii nga xamante ne mooy Boucher Ketchup barki démb bëre na fële arène nationale diggante ak Alaaji Mbay mu am ci ndam loo xamante ne ndam lu rëy la ñu bari ne Boucher daa ñëwoon pour pour pour gàkk-gàkk bi mu amoon ci diggante ak Alaaji Mbay bu ko setalee day bàyyi bëre wala Boucher daa ñëw pour def carrière làmb gis nañ mbër yu bari génn nañ def ay sorties ku ne naan jox leen ma buuse jox leen ma buuse jox leen ma buuse dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi buuse nuyu nañ la baax siyaar la waaw maa ngi lay fay wasaare maa ngi leen di béggee maa ngi leen di siyaar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di kontaan ci yéen hmm. ah, di bég ci bu baax a baax hmm. di nuyu waa adduna di nuyu sénégalais yi gis naa sama victoire bi niñ ma ko yéenee ah di nuyu kilifa diine yëpp waa kër Cheikh naa Cheikh Sadbou ah waa kër maam bu Kounta Ndiassane waa kër maam Baye Niass Murit Laayeen Xaadir ah di nuyu sëñ Mountakha Bassirou bu baax di ko ndokkeel di ko gërëm di ko ñaan yàgg fi te wér hmm. di nuyu xa jànkatu xasaayitu Serigne Touba yëpp di nuyu àdduna daal di nuyu réew mi. waaw hmm. oh. sa diggante El Hadj Mbaye bi jàll na. Boucher day continuer ci làmb ba tey def carrière làmbam la mu la mu yaakaaroon ci làmb day ñëw pour jël si ko wala da ngaa ñëwoon pour dindi gàkk gàkk bi. non man soo gisee li ma fere ci làmb ji ak ni ma ci mel ak entraînement yi ma ci daj li ma ci daj yëpp xam nga ne du pour benn mbër rek mbër yi nag mbër dafa am ay mbër yu ma ciblé mbër yoo xam ne tey maa tey bu ñu waxee mu neex bu ñu bëree mu neex tey mbër yooyu laay bëreel mais du ma fekk mbër boo xam ne nag tey ci làmb ji kenn xamu ko defu fi dara ba pare nekkul ci lenn xam nga support amul supporter askan wi nawlawuñ ko mooy bëreeg moom mais nag ay genre comme Zos ñoom indiwaat nañ ma ci làmb. non est-ce bu gisee Boucher di ko laaj du ne non kii daf ma yab. daf ma yab kii Zos kañ mi ngi waxaale ak ay promoteur promoteur yaa ngi koy woo mi ngi waxaale ñoom bu fekkee du dëgg na génn weddi promoteur yaa ngi waxaale ak moom après affaire koppar mooy problème bi te dinañ ci juboo incha allah. Hmm. parce que man lu mu laaj dinaa ko def. dama bëgg woon Sénégalais yi lan laa mëne man Ketchup l'international laa man fépp laay laal luy maye xaalisu góor rek di pawum góor boo gis muy maye xaalis te nekkul sàcc ak def lu bon ak wax lu bon rek dama ciy dem ba mu jeex te incha allah rabi sénégalais yi dinañ ma découvrir dinañ xam ne làmb dafa nekk sama deret barke Serigne Bamba. non buuse na wax dëgg waxtaan wax dëgg ci la mais Zos moom tolloo leen yenn niveau ci làmb ba nga war a mën a. bëri lu tax nga ne tolloowuñu niveau. Zos bëri Alioune Seye 2. waaw Zos bëri guy garab ci kaw lay fekkante man mbaru askan wi laa mbëru réew mi laa. su ma bëree la yàgg na ba mu ñu boolee. man Zos maa ko ëppale ay man maa ko gën nekk professionnel. ay buuse ku la MMA maa ngi nii dem MMA def fa lu rëy boo boo tapé Google canal canal canal info canal fépp canal set yeeg yëpp boo tappee les professionnels MMA dañ lay won kanamu Ketchup kon ay jos yi man yëngaluñ ma. dama koy ñaan sens parce que noonu la doon def free fight xeex free fight. mais kenn gisu ko fenn kaas di dóorante ba kenn da nga ko gis fenn ci internet wala nga gis ko mu am ndam wala ñu jox ko ceinture waaw man te du gis nga sama ceinture kon man moom du ñu benn gis nga fii looy wax day am preuve jos dama koy ñaan ñu bëre parce que fii la doon dëkk ñoom booy sey di sonal ay bàcc seras di sonal adduna bi di sonal ay isaa puy ñu may ko sens ay man maa ngi nii nag xale bu ndaw ñëw màgg ñëw gënoo ma bari wax dàqoo ma bëre ëppoo ma moyen ëppoo ma dara day ñëw ñu bëre parce que làmb moo ñu boole. Zos baal di géew la de. Zos maa gën a nekk bu wàgg a géew fuuf xanaa xamoo découvrir ko ma Sénégal mooy doxee nii soo gisee ñu naan comédien laaj yii nii c'est normal. Mm. parce que Sénégal boo wéree 100 pour cent dërëm doo ko fi am. soo wéree 100 pour cent kenn du la teg fenn da ngay dof benn côté wér benn côté wala nga comédie benn côté sérieux benn côté pour nit ñi mën laa bàyyi xel nga romb leen dem fële te kaw. mais c'est bien ku wérul dina am ku wérul waaw yàlla mooy def loolu yàlla mooy fekk ku wérul bu wërsal gëlee ko lu ko neex lépp lépp lu Macky Sall am président Macky Sall mi wër lépp lu mu am man am naa ko lenn rek la ma ëppalee lenn rek rek rek la ma ëppalee mooy président bi mu doon te yow xam naa ne sa tànk sa bët sa teggi woo ko ci président. toog teggi moo ko fa de toog président teggi moo ko lu ma ko fay teggi. déggu ma la la fawum góor mu ne mi ngi sama xel. nekk président sax bëgg naa ko parce que président de la république bu jàngee jàng naa. la man dégg na am na làkk yu ma dégg yoo xam ne sax dégg ko ndax man je suis lent dégg naa espagnol dégg naa parce que liggéeyee naa mexicain mexicain yi. waaw ah. liggéeyee naa espagnol yi liggéey na américain yi liggéeyee na ay français liggéeyee naa xeet yëpp xam nga ne Amérique boo fa demee làkk yëpp ngay dégg. Ah. waaw ah làkk yëpp ngay liggéey Amérique fa la adduna bi yëpp daje. adduna bi dëkk boo la jaaxal ci adduna. Ah. ay koroborok ñëpp foo dem fa la fa fekk. wuy ba fexeel jéem a doon nga xool meeru géejawaay teg meeru géejawaay loolu dama koy doon far force parce que géejawaay def naa fa loo xam ne war naa mën a nekk maire bi <laughs> ndax maa ngi dimbali jeunesse bi maa ngi euh, jàppale jeunesse bi ku am soxla boo ma ko waxee ma faj ko dëgg la parce que Boucher fi toll nii sénégalais la def la yoo doon uh-huh. te sénégalais ñu ci bari dañuy ànd ak yow de koo wax mu ne la non dafa gëm boppam dafa kii mais ci làmb actuellement la ñuy taxaw ba léegi Boucher gis nañ Alaaji Mbay bëreeg yow ba pare wane gaañu gaañu boo xamante ni vraiment ñu ci bari jàpp nañ ni loxo Boucher jugu ci loolu lan nga ci wax parce que bu moom sax wax na rafetal ne noo du buuse moom ma ko teg. Hmm. yàgg na affaire yooyu mais ni mu waxee dafa mel ni buuse daal loxo. su yàggee ñëppay bàyyi làmb. parce que munoo jël avance kii jël avance mbër mee dem bëri ji kii bëri ji après nga ne moom a def lii moo ma def lii. te loolu ñun ay doomu julli lañ nekkuñ ci yooyu. yow dafa dara alaaji damaa sëkk ak lu ma koy defee dem naa ñaan lu ni dama ko bëgg a daan damaa bëgg bu ma kenn jàpp ci gàllaaj damaa bëgg bu ma kenn catu damaa bëgg bu ma kenn euh, lor ci réew bi te loolu am na yàlla defal na ma ko daan naa ko kon bu mu saltel nekk fii naan ay karang loolu baaxul mbër boo daal mu ne dafa am blessure rek yii di taxal beneen mbër mi loolu baaxul man yooyu frustré wu ma de parce que ku ci nekk rek sa diggante yàlla ngay xool lijjanti wu ma loolu sax sama ndam lii kenn du ko cof day dem ba à huit ans huit ans lay daanu incha allah rabbi bu fekkee bëgg ma noppee tax muy wax dina daanu di daanu ba huit ans incha allah rabbi ñu ñëw ci gis naa xale bee de Liss Ndiago génn na barki dem def sorti ne dafa dafa bëgg naa bëreeg yow. Uh-huh. te man ne mais nee na moom sax nee na yow comédien nga moom loolu la wax comme li Sénégalais yëpp gis ni Boucher comédien la moom nee na moom comédien nga loolu moom waxatuñ ko mais gis nañ ku mel ne Alboury mu génn moom it def sorti gars yi expliqué ko ne ko est-ce que bëgg ngaa bëreeg Boucher mu ne waaw. mu ne waaw ba mu yàgg mu ne non garaaw buuse sama xarit la te dafa am xaalis combat bi sax gis naa lim ma ci wéef ñaanal la. dañuy ñëw ci Laurent après nga ñëw ci man suma rakk la. ñoom sumay rakk lañ. Hmm. comme ñoom am wax ma ko ma jàppale leen moo gën a jege ñuy sekk ñaaw. loolu du lu ah, te man du ma moroomam. bu muy wax ay comédien yi même bu dee comédien boobu noonu comédien boobu tey liis man bu ñu bëree woon un milliard combat mënul am ci man rëpp bokkul. bokkuñu hmm. doole bokkuñu hygiène de vie bokkuñu dara. kon na ma jox respect jox ma cër parce que cër boobu ak respect boobu laa ko jox na suma rakk la du ma wax ci loolu. Alboury bii nii may wax ak yow nii moom laay wax. Alboury daf ma tooñ. Alboury waaw xam nga man bëri xam nga tooñ na kay ndax bëri naa njambaan daan ko. moom laa lay wax na la daf ma tooñ waaw <laughs> Alboury hmm. man mbëri yëpp tey yi nekk si réew mi yëpp sekkuma kenn lu ñaaw mais Alboury mi ngi may doog a def lu ma nit mus a def. parce que man munu di ànd ak njambaan di nekk ak moom suba ngoon ba bëccëg. bokk moom kër bokk moom lépp gàllaaj yi may sangoo sax da ko doon sangoo. Mm. Alboury toog ci télé bi naan ay sama xarit la ay daf ma dama ko weef loolu baaxul jaxase yooyu baaxul Alboury sekkuma ak moom wéef sekkuma ak moom déggante boobu muy wax. yónnee woo ko dara ci barki laa ilaha illallahu billahi wallahi tallahi barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul lii ma lay wax bu ay fen la yàlla bu ma am dara ci àdduna barki Serigne barki Serigne Bamba Xaadimu Rasul sekkuma ak moom wéef Hmm. su ma woowoon nag wax ma soxlaam nii lii may wax ak yow su ma ko mënee dama koy faj ndax doomu jullit laa nii may wax nii mu woo ma ne ma lii laa bëgg. Hmm. dama la cee yaakaar ma jël ko jox ko mais warul taxaw naan dama ko wéef te yàlla xam na ne ak rasulillahi Alboury xamul nu sama xaalis mel. musul lekk sa dërëm barke lii ma def nii mën naa ko cee porte plainte mu génneel ma preuve wéef bi parce que fii dara lu dañ bu demee wéef dañuy génnee transaction yépp na bàyyi lu ñaaw na bàyyi wax jooju. yow wax boobu da gis ni wax yaa daf ma tooñ parce que njambaan tey bu jàppee loolu waa géej waay jàpp loolu tey lan lay nduru man du ma fëkk jëf njambaan moo ma gënal Alboury téeméeri junni yoon te njambaan dama doon ñaan yàlla mu daan am Alboury ba damm ko tey Alboury njambaan damm ko moo ma gënal lu ma mën a am ci àdduna mooy sama sak yenn yi rafetul Alboury na bàyyi yooyu loolu baaxul bàyyi leen di nekk ci internet bi di télé télé yi tiim leen ngeen di wax bay jaxase parce que réew mi lu yàq diggante dafa dafa gaaw te man sama diggante ak sama nit bugguma dara lu ko yàq bugguma nit dugg ci mm-hmm. sëkkuma ak lu ma koy joxee xaalis sëkkuma ak moom lu ma koy jàppale ci combat ana njambaan gis na loolu njambaan non njambaan mi ngi fi xooluma nag gis na koom gisu ko loolu li jë woo naa ko ba ñuy waxtaan waxu ci waxuma ci mais man xam naa ni loolu neexuma man parce que sëkkuma ak loolu Alboury te Alboury woo naa ko téléphone jotuma mun naa ko waat léegi léegi nii nii nii dama koy waat nii léegi dañ ma jox téléphone numéro ma woo ko nii téléphone. woo naa dama ko woo wax ko li ma koy wax mu weddi ko. Alboury dama ko woo wax ko li ma koy wax mu weddi ko ma dagg vidéo bi yónnee ko ko. Hmm. mu mu ngi ma doon waat nii gis nga. waaw absence baa nii. waaw 15 yaa tax ma woo ko. voilà instant yii bu da ngay sa mer dafa yéeg. cinquante sixième étage sax wàcc na parce que tooñ lu mu rëy rëy baal ma moo ko gën a. jégal naa ko jégal naa ko dafa juum jégal naa ko. Hmm. parce que àdduna amul solo. Hmm. mais sénégalais moo doy waar. Hmm. ndax dama dama jékki-jékki ay gars yu bari di ma woo. naan ma géej waaye ñu ngi nekk fii di dagg vidéo yooyu. xam nga dañuy yàkkamti dañuy gis benn diggante ñuy ànd. Mm. nit ñi bañ diggante bi bañ ko bañ ko ba duñ ko mën a wax. Mm. léegi dañuy bëgg benn faay bu ndaw rek ñu gaaw exploité ko. Mm. man du ma yàq nit. du ma def lu bon sama nitam a gënal lu ma am ci àdduna boo xamee Ketchup xam ni dafa fidèle ci nitam. Mm-hmm. dafa fier ci nitam. boo gisee Ketchup xam ni lépp lu mu am ci àdduna fidèle moo ko may ak fierté. man ñu bari. waaw bari na ñoo xamante ne su ma leen di dégg yow yaa tax. waaw nekkuma ci yooyu man sama nit moo ma gënal ku dul sama nit sama nit ku muy joganteel sama nit a koy gën sama nit a koy sut su ma sañee mu nit da koy def lu lu ko neex man nekkuma ci parce que dara fokkuma tiitu kii man munu ma sama nit a ma gënal lu ma am ci àdduna mhm. man lu bari nit bari dañ may woo ay yamaleel mbëri euh, Balla Gaye ku muy bëreel yamaleeg moom del wax lu lii ma ne ko mukk munu ma tricher mhm. xam nga munu ma tricher dëgg la looloo ma dal ci sama nit yëpp sama nit ku muy jonganteel rek damay foog ne sama nit boobu moo war a nekk ci kaw chaque jour. Mhm. waaw noonu la demee nag. léegi Alboury moom jéggal nga ko. jéggal nga réew mi ñëpp ah, ah, léegi. Sénégalais yi man maa leen saf. te te te te mooy li ma leen wax bu leen neexee nañ ma jàppee comédien mais maa leen koy wax ni hmm. dinaa fi daan mbër boo xam ni dinañ dar seen gémmin yow bi billaahi wallaahi taalaay bu dee bëre mën naa ko bu dee doole xam naa nuñ koy wutee. Ouzin yow da def carrière làmb. carrière làmb dinaa leen nax ba jël roi des arènes. man maay wax ak yow man Ketchup <laughs> dinaa nax sénégalais yi ba jël roi des arènes man te yàggatul dara. Ah. luy may roi des arènes. entraînement ak lan gëm sa bopp ak lan fonk say mbokk ak lan fonk say nit ak lan am fit ba la bëree ak lan loolu de am moyen ak moyen <laughs> te yo am nga moyen am nga ñu lay jàppale la neex dem fu la neex dem pour sa xel dal loolu loolu jotewul ak dara laab bo fu la ne bëggee dem entraînement bu ñu la nee Chine nga dem Japon nga dem entraînement Amérique nga dem entraînement sa xel dal Italie nga dem lekk lekk bu baax Espagne nga dem lekk lekk bu baax lamb brise de vase. Ah. brise bi di ñëw ngay ngay ngay ignoré. xam nga sport nag xelal kon te sama xel bi te taalibi Sëriñ Tuubaa dinaa leen nax. téeméeri mag yi nag am loo ko loo ci moom. mu la ko wallaay dëgg la moom xam na ni nekk sama xol lool. dëgg la te dina ma ko jox maa lay jaajëfal am solo yi nga uh-huh. ko ci vraiment Euh, képp ku dégg buuse ci wax bu rafet la koy dégg. Mm. ci wax boo xamante ne wax bu nice la du sa kenn ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf jaajëf mon ami. Mm. kontaan ci yow. maa ngi nuyu gaa yëpp di nuyu àdduna di nuyu Ndoura Balde. Mm. di nuyu Matar Diop suba teel di nuyu Pape Diouf di nuyu Bébé Baas di nuyu Ismaïla Baas Birane Ndour maa ngi koy nuyu sam papa Youssou Ndour maa ngi koy nuyu gis naa geste bu rafet bi ma defal ci Bercy bi. Bercy man maa invité d'honneur man maay dem yëngal Bercy bi incha allahu rabbi bu neexee yàlla maa ngi woo adduna yëpp ñu jàpp ci Bercy Bercy bi. Mm. ñëpp xam ni Bercy bi Bercy international la parce que suñu papa moo ko woote. France incha allah bëgg ngaa dem. ah loolu ah. <laughs> maa ngi gërëm <laughs> di gërëm sama yaay di gërëm sama papa di gërëm sama jabar njambaan maa ngi lay <laughs> encouragé waat encore une fois di ñaanal jàmm di la wax bul déglu kenn. ndam eh, yàlla mooy maye mooy xañe liggéey nga li nga war a liggéey def nga li nga war def lépp daanu nga yàlla yàlla moo ko dogal daanu moo gën dee. daanu ba pare di dund di nekk ci moo gën dee moo gën feebar. kon amal jàmm lu tax mënoo dem Bercy. seen patron bi du la wutal agrégation defal la vacance nga dem. <laughs> yow waxuma loolu de. waaw yow léegi da nga dem bëgg ngaa la waaw. waaw dama laa laaj rek koy jël en charge. non xam nga rendez-vous amul fi mu nekk nii. <laughs> bu ci kenn mere Papa Youssou. bu ci kenn mere kenn. waaw Bercy bii. Hmm. nit jóge fii di dem du yomb. Hmm. parce que rendez-vous yi moo sori ndax Covid bi. muy fépp nag dëkk yëpp la rendez-vous dëgg na nit ñi am compréhension nag ñëpp mënuñoo dem waaye ñi nga xam ne nag yàlla defoon na am nañ ay visa en cours hmm. moo tax en cours baax en cours kon ku am en cours la am yaakaar ku am en daal yor sa billet ñi amul sax passeport li amul wóor sax de non ñi amul passe ah ñi amul passeport daal mooy doxal waaye rendez-vous daal yombut waaw di wax sos na pare bu baax a baax di nuyu moo géet moo géet maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm moom frère de valeur maa ngi lay siyaar gis naa jàppale bi gis naa xaalis bi gis naa teraanga yi gis naa lu baax li ngay def Souleymane maa ngi lay gërëm l'international moo géet teg na ko ci yoon moo géet ñëpp la jàppale moo géet ñëpp la jàppale ñëpp ci làmb ñëpp dalaa fay ba pare joxaale la xaalis. mais est-ce que yow la jàppale ëppul doole lim jàppale gars yi. ëpp la jàppale ba ba ëppee doole man moo Mouhamed la laa xam xaw ma moo géet ba ñuy na tey lii dafa neex nii rek këtti këtti coow li nii kërëng kërëng ñu amoon ay problème mu def nii ma def nii rek moo tax gars yi mën a dugg surxlu mais fu mu nekk nii maa ko pointé xam nga moo gis nga bis bu rëy bi mu tëgg ah. xaalis bi yëpp soxlawu ci dërëm ay pouponnière ak ay hôpital la koy yóbbul. ba pare def ko bien mille francs lu jafe promoteur bu ko def daanu bien mille francs. ñun de mere woon di gërëm Fallou Ndiaye bu baax Fallou Ndiaye sama promoteur de valeur. maa ngi koy gërëm maa ngi gërëm ñëpp di gërëm àdduna. di hmm. gërëm Serigne Touba Xaadim Rasul mi nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi Serigne Touba Xaadim Rasul. ndam li ci loxoom la jaar. di nuyu sëñ Muntaxa Basiru bu baax a baax a baax di nuyu waat jànkatu yëpp